ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم ال... الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salli llahuma ala ashrafi alaalamin asli lusuli fa aslu jamii lkawni xaqan muhammadan abulkawni kullihi qadiman muhammadan abul anbiyai wa rusli maana muhammadan qitaamu jamii lanbiyai muhammadan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 nuyoo beeg ziyaar geeg ndokkeel gi ñu jiital ci kilifa diine yi ñaanal leen yàlla sàkk ci ñoom ay ñaan la nekkoon ci seen bàyyi yàlla na dooteeku ci seeni kaw waaye nuyu it waajur yi nga xam ni ñoo ñu bokk njaboote ziyaar leen ñaanal leen sunu borom yàlla guddal fan yi dolli wér gi sàkku ci ñoom ay ñaan jag leen nuyoo kilifa yi ñu bàyyikoo ko alxaaji Idrissa Diop bu tafsir Oustaz Oumar Diop ak njabootu rahmatullah alayhi ta sasuma jóge yëpp ziyaar leen ndokkeel leen waaye jaar ci nuyu ziyaara docteur Mouhammad Bachir Ngom moom Rawhan Ngom ak Serigne Mouhammad Lamine Guèye ca Sampaate ziyaar leen bu baax waaye ñaan sunu boroom yàlla na yàlla dëgëral taxawaay ya soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yi ñi ci biteeg ñi ci biir ñëpp bàyyiwunu kenn fàttewunu kenn Babacar Pouy sunu sunu sunu sunu sunu xarit la sunu soppe la mu ngi ci biti réew mi ñu ziyaare ko ndokkeel leen ñoom ñëpp rekk ak soppe yaa xarit ya muy àndal yëpp rek nga xam ni dañu leen di jot téléphone ñuy béggee jilsatu nabi di jotaayu Seydina Muhammad yi ni ko noonu Ousmane Aydara Chérif tabarfakalla moom it ca biti réew nga xam ni moom it sët la tabarfakalla ci nitu yàlla wu mag woowu nga xam ñoom la ñuy wax sërif Yunus ay dara bu bangeer moom ma nga ca biti réew moom ak soppe ya xarit ya noonu lañ leen di jote ñuy bégg jël satu nabi ñoo nit yal na yàlla béggal leen fañu ne waaye mbokk yi rek bàyyiwunu fenn rawatina ñu ne ci réew mi nga xam ne nag mu ñoom guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñaanal leen yàlla yàlla gën leen a taxaw waaye ñaanal télévision bi eh, yal na yàlla yëkkati ñaanal bu baax directeur Hadj Makhtar Sylla yàlla dolli wéram dolli sutura yi dolli barke bu baax a baax a baax a baax ci biir ak biti moom ak personnel bi mu ko àndal yépp na ci liggéey bi Moussa dellusiwaat nañu ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jël sëtu nabi nga xam ni ñu ngi janoo ko uh, Moustapha janoo ko Iblis seen waxtaan wi ñoom ñaar ba ñu dajee te nabil Moustapha ne Iblis ndax am nga ay noon ci sama xeet wi mooy gaa yi far ak man <laughs> mu ne ko waaw waaw ñi farak yow dama ci ami noon waaye am na ci ñoo xam ne samay gaay lañu de <laughs> am na ci ñoom samay gaay lañu <laughs> eh, waaw waaw mooy ñi ma la wax sa sa samay noon lañu seen sens contraire yëpp samay gaay lañu waaw nabi ne ko limal ma leen munu ko mat nañu fukk ak juróom ñëpp ci sa park lañ ne samay noon lañu waaye waxoon naa la ni ku ne war ngaa bokk ci biir ndax ki mu njëkke Moussa ki mu njëkkee tax nabi na ko kan mooy premier mu ne ko awwalum anta yaay premier waaw ah, nabel premier mu topp ko nag di ko lim yaay premier waaw teg na ca deuxième maa ngeen àndoon nañ ko teg na ca troisième maa àndoon nañ ko quatrième cinquième sixième septième Moussa ba démb maa ngi jàngale dixième waaw démb maa ngi taxaw ak gars yi ci dixième mooy fukkeelu noonu iblis bi mbokk yi tey damay taxaw démb ci dixième di mu'minun yu dayyamu aw jullit bi nga xam day saxoo laab joxoon naa leen rendez bu ne leen su ma ñëwee ñu dem ci fukk ak ñaareel bi fukk ak benneel bi muy onzième noonu iblis nga xam ni ci équipe rasulullah la nekk mooy kan yàlla nañ ca bokk mooy mu'minun kasiiru sadaqati mooy jullit bu mën a def taraanga <laughs> si tët tët tët yi dañu xool noonu Iblis yi de <laughs> Iblis nee na bokkuñu samay noonu jullit bu mën a def taraang man kay da ngay bañ a doon jullit sax di def taraanga tantan wala nga doon jullit bañ sax waaye nga doon jullit ba pare boole ci di def taraanga Iblis nee na man noonu laa lay def moo gis nga mu'minun nag laa wax Moussa xool taraanga yépp de no mu'minun mooy ku gëm yàlla ba pare di def taraanga xam Moussa bari na kuy def taraanga gëmul yàlla xanaa dëgg de mu ay sacrifice lañ ko sant yi muy def nii waaye Moussa bàyyi ma da am taraanga seen yëpp ay taraanga am na ko am nagam yeeg xaram yeeg béyam yi loo am na koo xam ne li nga seen muy génn nii moo dañ ko wax de moom saraxewul ngir yàlla de daa am ku ko sant affaire yi bagage yi ay bagage am lay lijjanti de lijjantiwul dara yàlla moo tax gis nga mu'minun la utilisé Moussa mu'minun mooy lan mooy ki nga xam ni soo tuddee yàlla xolam tooy bi yàllay cité mu'min noon la ko cité innamal mu'minuuna alladi ida u alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum nee na jullit mooy ko am boo waxtaanee waxi yàlla xolam tooy waaye Moussa ko xam booy waxi yàlla mu seen la sa zappe la ay booy yi dañuy kii quoi déconné da lay zappe parce que da ngay déconné lay parce que da ngay dëgg te kuy wax dëgg da ngay déconné am na ñoom Moussa billaay koo dégg ci la day déconné parce que wax dëgg la da ngay déconné mooy da ngay laal bagage yoo waroo ko laal la ilaha illallah nit bu demee ba kuy wax dëgg mu ne day déconné parce que ay dëgg da koy gaañ kooku day wane nekkatul nekkatul mu'min de moo tax mu'minun kasiiru sadaqatin la iblis wax daf ne waxuma rek ku ngeen seen muy saraxe waxuma kooku de dama ne ku gëm yàlla piir ba pare boole ci di génne alalam di joxe allahu akbar Moussa gis nga bi yàllay tàllal loxo naan kan moo may lebal man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan bi ko yàllay wax yigoo ni tàllalul ñëpp loxo déedéet bu kenn yàlla ñëpp la tàllal loxo déedéet yàlla ñi ko nangul la tàllal loxo mu tax keroog bi Muhammad waxee loolu ci pénc mi Aboubacar li moom yëpp da koo joxe parce que ci ñi gëm yàlla la yàllaa tàllal loxo ne kanamay may lebal lebalin wu rafet mais yéen ñi ma nangul nag laa wax moo tax muminun kasiiru sadaqatin gëm yàlla ba noppi boole cooy loo yor joxe Iblis ne na ku ko def ma def la noonu parce que dangaa yor ñaari élément yoo xam ni ku ko amee dem nga aljana mooy gëm yàlla rek day yóbbu ne aljana yemoo ca nga boole ca di def taraanga iblis ne kii xam nga ni dama koy dama koy def noonu waay moo tax sunu boroom ne labal leen ma labal rafet waay mooy def leen taraanga ci man moo tax léeg musaa nga dégg koy wax ni maa ngi ñaan ngeen ñaanal ma yàlla ba li ma am ci taraanga naa koy def ci diini bu ma ko def ci leneen musaa gis nga ñoo jarañee nag ñoo jarañee saa ku yàlla dem ba may ko xel ba muy taxaw naan li ma am ci taraanga ndee leen ma ñaanal bu ma ko def ci mpo naa koy def ci diini parce que ku koy lebal yàlla ah, Moussa buñ ne yàlla nee na ko may lebal nga dem ca soirée bay baata ñoo wax nga ne yàlla nga lebal koo foo lebalee yàlla Moussa nañu wax dëgg waay kii day tappale waay duñ ah, waxee ñaan kat la kan lay dimbali dimbaliwul kenn bësam lay wër moom boppam lay dimbali ah. dafa bëgg ñu bind ko ci journaux yi bëgg ñu tiktok ko bëgg ñu wax ci moom bëgg kooku way ko loolu dong la ciy wër kooku defalul dara yàlla xam nga kan la yàllay wax kan moo may lebal lebalin wu rafet mooy ki nga xam ni taraangaam yi mu am yëpp yëpp yëpp ginnaaw bi mu ko càmbaree ma ngi koy jël ndax boroomam la xam ma ngi koy jox boroomam man istataa minkum an yastatira min an naari walaw bi chiqi tamrin fal yafal sayyiduna muhammad ay wax de nee na ku bëgg ci yéen ku am kàttan ci yéen pour mën a wut pour mën a wut barrage bu ko baare ba du dem safara mu dem aljana na ko def nee na loolu nag ma wax leen donte donte ngëbu tàndarma mala bul ko xeeb ñu ne ko lu tax mun a saraxe mooy barrage bi baare nit ba du dem safara Moussa yëgul ni saraxe barrage la <laughs> ah nit xanaa xamoo ni Moussa ma ngi mel ni euh, ki nga seen muy tabax ki nga seen muy tabax xam nga ndox mi day dugg mën naam dane ndox mi day dugg mais muy baare ndox mi Moussa du muy def day wut ay birig wut ciment wut suuf mélangé ko di tegi birig di tabax Moussa déggoo ne suñu digganteeg safara bokk ci mool yi ñuy teg mu ñuy baare mu ñuy teg mu ñuy baare ba dootuñu mën a jàll dem safara bokk na ca loolu moom la koy misaal neel sarax la sarax la ah, sarax la moo tax dee góo Seyduna Muhammad def ne a sadaqatu tutfi sadaqatul xafiyu tutfi adabu rabbi nee na yëgoo leen ni saraxe day tax sax Moussa bu la yàlla mere woon maanaam dindi mer gi su yàlla mere woon nit su nit saraxee yëgoo ni sax yàlla ne na lu ma la mere mere mere ndax say jëf soo saraxee sama mer wàcc bu doon yàlla day mer boobu mbokk yi lu ñu ciy dégg jullit buy saraxe rawatina bu koy def ca façon ba ko yàlla bëggee neel kooku noonu iblis la xaritu sayduna muhammad qaala allahu taala wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa walaw kaana bihim qasaasatan wa man yu'min suuqa nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun mbokk yi damay teg baaraam aaya woowu laay leb jox leen rendez-vous insha allahu rabbi suba ndax waxtu damaa dab maag yéen insha allahu rabbi bu subaa daañu ànd ci wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa suuqa nafsihi fa ulaika humul muflixuun xanaa ma teg baaraam gërëm ñëpp sant ñëpp xam ni maa ngi ci onzième muy fukkeel ak benn ci noonu iblis yi te mooy muminun kasiiru sadaqatin ku gëm yàlla ba noppi mën a def taraanga mbokk yi mag yi nañ ci boobu waaye ma teg baaraam jox leen rendez-vous suba ñaan sunu borom yàlla na la defal ñu dégg ak topp waxtu we ma dab day wax ni loo mënta may sa bopp lu ñu ti may nga a di jël isaaratum salaamatal ardi fattabiu muhammadan wa riwayatul umami bokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waman adallu